الحمد لله الذي وفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه أهل الصفا بوك ييغا خامني يينغ سيتان سينغال تي في مبولم نيغا خامني ньо نيك تي سينغال اكتيفيتي ريو تاي سين ايميشن سوبر مارا مو نيوون في تي واكام سيت سي سونو بن بوك soxna si dañ lay nuyu d' abord maa ngi leen di fay. di rafetlu teewaay waaw d'abord ñu laaj ba noo tudd. maa ngi tudd Mariane Wan. Mariane Wan. yow jullit nga. waaw jullit naa. ci papa ak ci yaay. waaw kon mbokk yi seen émission Super noonu lay demee tey dañoo ñëw pour waxtaanee fekk soxna soo xam ni ñu ngi ko fekk fii ci Wakaam ci quartier bu ñuy wax Léona fas yéene ko delloowaat ci diine. wat ko lan moy tax yalla bind nit ndax yalla dafa wax ci alquran ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li dama bind nit ngir mu jamu ma dama bind nit ngir mu may ko yenen tib sallallahu alayhi wasallam wax ni ballighu anni walaw bi aya maanaam na ngeen di fàttali donte don teben la kon seen émission Super Mara li ko tax a jóg mooy ñëw pour fekki nit ñi fi ñuy dund bu ko jaree bu ñu la fekkee ci boîte de nuit sax ñu xam ci la ngay dund laal la pour delloo si waat la ndax loolu li tax ñu di ko def mooy yu nit ñi yàlla def leen a envoyé message boo xam ne damay wax ni tey ñu bari bëgg nañ diine waaye xamuñu diine bu ñu xamoon diine dinañ xam ne diine diine mooy mooy mooy mooy delluwaay bi diine mooy loo xam ni boo koy dund mën nga dund ba pare dund sa àdduna moo tax tey ah, soxna si d'abord question bi muy njëkk a posé yow bi ñu ñëwee dañ laa fekk nga sol sa modi bu rafet ak sa jiin bu rafet ah léegi nag ma laaj la ni la ndax jullit nga nga ne ma waaw man de jullit laa ma bëgg laa fàttali tuuti rek di la est ce xam nga ni ci lislaam dañoo bëgg jigéen di muur ay awraam maanaam jigéen léppam awra la loolu la borom xam-xam yoo al maratu kulluha awra maanaam jigéen léppam awra la est ce que d' abord yaa ngi julli di ngay di ngay faral di julli ndax nit mën na ni jullit laa ci laa mais est ce que di ngay pratiquer ça veut dire ndax musulman pratiquant dinaa ci sawar a wax ñun léegi comme ñun xale léegi moom suñu génération bi julli hmm. dafa nekk loo xam ne farataalu ko bu baax ku ci mel ni man toogoon naa ay jamono yoo xam ne daanu mu julli dama nekkoon fopp rek ne naan sol yére def lu ma neex fàtte ne yàlla wax na ñu julli mais bi ma demee ba màgg am benn maturité bi ci laa xam ne julli julli dafa war a di ko def may seetaan yenn waaraatekat yi ma xam ne war naa soppi sama doxilin mm-hmm. yàlla suturaal na ma nag ba léegi mm-hmm. wax dëgg fa neex yàlla maa ngi julli mais léegi-léegi ma toog seytaane mun ma lool mm-hmm. ak yitte àdduna ndax yenn saa yi damay liggéey bu may liggéey dinaa toll waxtu boo xamante ne te yàlla na ma ko yàlla jéggal julli duma ko mën ndax day fekk ma nekk ci liggéeyu jàmbur lu ci ëpp damay def bu ma wàccee dinaa fay mhm. mais yenn saa yi ma wàcc sonn lool ba damay fàtte ne man mii sax julliwu bu ma tëddee ba nelaw si laa daan ah man de julliwu ma waaye nag yenn saa yàlla dimbali ma bu baax a baax ba seytaane lu mu ba su ma wàccee li may njëkk a def mooy fay sama mboolu junni junni mais maa ngi ñaan tamit mhm. yàlla na ma yàlla gën a may courage ba waxtu yi may toog du ko julli ma koy julli daal

tey li muy def ci doomu aadama mooy fexe ba nga am stabilité fexe ba bunt boo fëgg mu ubbeeku wàllu àdduna fi maanaam bu la yàlla ni julli yàlla mu am ci benn intérêt bu ne jullit rek pour yow la xam nga booy liggéey di am xaalis salaire bi lay fay pour kan la pour directeur bi la wala pour yow la pour yow la kon yàlla bu la ne julli amna ni bo julliwul boo jullee am na effet yu muy def ci yow niki nonu bo bañee julli am effet yu muy def ci yow ndax julli yonent bi alayhi wasallam dafa wax ni man taraka salaata faxat kafar manam li ñi xamé ni ki julli nga wala du julli moy muy julli kon dang ci dégg ni nit man na tuddu muhammad wala nit tuddu ababakar wala mu tudd Ousmane wala mu tudd Aliyu fekk kum jullit la am waaye du jullit loolu nag rôlu kan la rôlu ki nga xam ni dafa wax ni moom moom mooy waxal yàlla yàlla bi mu bindee àdduna bi bàyyiwu ko noonu daf fi daan yabal ay ay yonent bu fi yonent yi jógee ñi leen doon mooy ñan boroom xam-xam yi borom xam-xam yooyu tey ñoom responsabilité ci fekki nit ñi fi ñu nekk wàcce seen niveau pour wax leen julli mooy lan soxna si yowmal xiyaam li ñuy njëkk a ci jaam bi mooy julli yonent bi nee na awalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowmal xiyaam mooy assalaam soxna julli boo koy def sa mbiri jamono lépp lu ci jaxasoo julli googu day ñëw pour orienter la jëme ci ci bu baax xam nga tey boo xëyee añoo wala xëy nga xëy ndékkiwoo añoo reeroo doo taxaw day metti ci yow niki noonu julli ndax dañuy wax doomu aadama ñaar moo ko composé yaramam maanaam koor bi ak am sa yaram bi lii tax tey mu rafet nii ku la xool bëgg laa xoolaat mooy dafa am ay produit yoo koy diw mooy tax mu leer nga am ay looy lekk loo xam ni day def ay effet secondaire ci yow ay vitamines yooyu bu manqué ci yow rek sa yaram dañuy gis ni dafa feebar waaye li ñuy wax ruux nag li tax mu dund maanaam nit di am conscience tranquille

ragal naa ne bés bu ñu fi jógee tey takk muur est-ce xam nga ni feebar yi nga xam ni tey moo gën a bari ci jamono lu mel ni feebaru ay faru rab lu mel ni feebar boo xam ni lu mënu ko gis bopp buy metti nga xam ne nii day metti tëw a tey feebar yooyu li ci ëpp ci lu koy joxe ci jigéen mooy ñàkk muur say aw ndax yàlla bu ñuy muuru leen yàlla amul benn intérêt ci nga muuru wala nga bañ a muuru moom li ko tax li ko intéressé mooy yow lay protéger yow yow mi nga xam ni yow yaay doomu man di jaamu man yalla du yok dara ci sama nguur ci ci wañi dara niki nonu mbindeef yeb buñu andon diko moy bañ ko jaamu du yok dara ci ci nguuram gi du ci wañi dara ba bari waxat ci alquran ni walaw sha allah la hadan nas jami'a suma neexon ñepp dima di jaamu kon yalla bu la ne murul mom amu ci ben intérêt intérêt bi ci yow la nekk ndax na feebar yoo xam ne médecin du ko gis sëriñu tariyaax mënu ko fajj moy ban façon febar jigen jo xamni ni awraam daf koy génne ci biti jinne yi di xol na ndax jinne yi ñu upp nit ñi moy waxna la ko sànq lu melni ni rap rab day jigen jigéen ñu bare bari crise école yi léegi léegi nga dégg ñu amna école sangam de amna na jigéen bi fa nek dañu dafa daanu ñu naan dafa ami rap boku topé ba ci biir du won jigéen jo xamni da daan muur ay awra kon soxna ci so bëggé mucc ci fébar yoy nga dal di muur say awra mu dess nak kenn ku ci ne bu nga jox dom joo xam ne dañ koy yaakaar naa yow bëgg ngaa jur domi ministre wala domi, domi président wala wala domu, directeur général wala domu sëriñ doom yooyu nag ku leen bëgg a jur maanaam ku leen bañ a jur rek fexeel ba bañ a muur say awal secret bi mooy ku bëgg a jur ñooñu il faut nga waajal sa bopp nooy waajalee sa bopp mooy fexe ko say awra maanaam liy feeñ ci sa yaram nga di ko nëbb kon soxna si foofu maa bëgg bala ñuy continuer émission bi ma ñaan la nga dem nag defarwaat ba jekk boo ñëwee nag ñu àggale suñu émission. d'accord loolu amul benn kon lii li muy wane mooy nekkete doomu aadama dafa soxla ku koy fàttali ndax nit ni ko yàlla bindee dafa soxla koo xam ni danaan ko ah sa waay yaa ngi dem de del si waatal moo tax soxna si sa image bii te nag image bi ma leen di mboolu fekk kon loolu liñ ci war a jànge mooy nag nit ñi bonuñu waaye dañ leen a wanu yoon kontaan bu baax a baax ci accepté bi nga ñu accepté kon sol sa yére bu rafet bii nga xam ne moo gën a yiw gën a rafet gën a nuróo colinu réew mi foofu dañuy am benn question boo xam ne dañ koy wax dañ naan est-ce que nitu diine yi ñoom ñoo deful seen taxawaay moo des walla nit ñi ci boppam ñoom ñoo am problème loolu question la dañ koy bàyyi ak téléspectateur yi ñu joxe ci seen xalaat ndax xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla di yónni yàlla daf ko boole woon ak ay saxaaba saxaaba yooyu mu ko boole loon bi ñuy dugg ci lislaam mën nañ cee cité ku mel ni Seydina Omar ibnul Xattaab nga xam ni presque bi ñuy dugg ci lislaam am na ñeen fukki at loolu liñ ci jànge mooy yàlla moom du tëj ay bon ay buntam ci heure boo paree pour tuub ñëwaat ci moom moo tax alxuraan li ñu wax nii laa taqnatu min rahmatillah bu leen découragé bu ci yërmande soxna si kon tey Sénégal TV ak émission Super Mara dañ lay bàyyi kaamil bi say bokk say xarit nuyu dañoo ñëw rek mooy jàngal nit waaye nit bu xamee rek dina soppeeku bàyyi la nga tàggu waaw sëñ bi ginnaaw bi ñu waxee sànq ba léegi maa ngi gërëm bu baax seen teewaay di ko rafetlu di gërëm waa Sénégal TV ci déplacement bi ngeen def fekk si ma fii pour delloo si waat sama xel ci yàlla tax na ba ci diir bu gàtt maa ngi delloo bu baax baax sama xel si yàlla te ñaan naa yàlla ginnaaw tey ak njëriñ bi ma jëlee ci waxtaan bi gën a farlu ci sama julli gën a xoolaat sama solin bu baax a baax gën a respecté wàllu diine ndax waxtaan bi ma fi jële tey yedd na ma ci lu bari xamal ngeen ma loo xam ne dese woon naa ko xam kon maa ngi leen di gërëm bu baax di rafetlu seen teewaay di ñaanal seen télé bi fi ngeen bëgg a yegg yéen a ko xam yàlla ngeen fa jëm ci barke Seydina Mohamed di ñaanal nag sama famille sama waa sama yaay ñoom ñëpp ndax xam naa ne rafetlu nañ émission bi ndax lii lu baax la bu may jëmale kanam la rawatina ñoom ndax dinaa si jëriñu ñoom dinañ ci jëriñu ak keneen ak keneen ak ñëpp ñi koy seetaan foog naa ne bés buñ ko seetaanee dinañ ci jëli leçon bu baax wasalaam kon mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax bi nga ni yàlla suturaal nañu ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamin di santaat yàlla bu baax mi nga xam ni ñu may occasion bi nak bu ko neexoon ñu nekk ci leneen yàlla mi ñu xiir ci ñuy jóg di dem di waxtaan ak nit ñi ci wàllu diine ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant nag suñu invité bii bu baax di soxna Mariane nga bi ñu dañ ko wax rek mu acceptel ñu sans condition ñu ngi koy sant bu baax di sant ay parents

lislaam diine la joo xam ni laa taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru zunuba jamian la yàlla wax bu leen découragé mukk ci yërmande yàlla kon nag seen émission Super ngeen àndoon ceeg El Hadji Malick ak mbooleem équipe bi nga xam ni nii ñoo ko doon jàppale di nuyu ñëpp di wax ni wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu